ñu wax tey ci li nga xam ni moom moo jëm ci euh, élection locale yi mais dafa am benn point bi ma bëgg a wax laata ñuy dem ci élection locale yi report yi situation adjoint maire yi yéen tey lan mooy seen situation li nga xam ni moom moo jëm ci adjoint maire yi. précarité total en un comme en mille précarité totale. lu tax loolu. <laughs> même ba. Mm-hmm. en tant qu'adjoint maire. Mm-hmm. dañ lay jox yow dañu la fal. même condition que maire bi. tigi ni ñuy falee maire. Mhm. ak ni ñuy falee adjoint maire. Mhm. amul benn différence. liste ngeen di dem. Mhm. list ba gagné. wala xamul gagné en tout cas vous êtes conseil. ok ñëw salle de conseil ñu def passer au vote. ñu fal la. ñu fal maire fal ses adjoints. dans les mêmes conditions. ñu installer leen dans les mêmes conditions. mais gis nga jour bi ñu leen installé. Mhm. jour bi ñu leen installé euh, jour boobu ngeen di jour boobu lañ leen di xàjjale. lu tax lu tax loolu. mais c'est le code des collectivités territoriales moo joxul considération adjoint maire. am ngeen kuréel yi nga xam ne mun nañ taxaw ngir mën a. kuréel yooyu. Mhm. muy UAL muy euh, mhm. jël ñu benn préoccupation concernant les adjoints au maire les maires la ñu toppatoo. xam naa xam nga ñoom ñëpp ay maire lañu. Mhm. <laughs> wala ay président conseil départemental. si si waaw ah, seen yoon seen yoon ci adjoint maire. Mhm. donc il faut soppi doxalin. oui te adjoint maire yi ñu ngi organiser wu nag. ah bon ah oui au moment où je vous parle. loolu yaa ngi ma ko jox comme information. au mhm. moment où je vous parle. y a le groupe national qui s'est constitué euh, et y des groupes régionaux. waaw y a des groupes régionaux. lu ngeen di waajal lu ngeen nar. parce que depuis des fexe nu ñu booloowee pour créer benn dynamique pour que les les, les conditions des adjoints au maire soient revues. Mmh. on a tenu une réunion à Mbour on a tenu une réunion à Kaolack on a tenu une réunion ici à Dakar au CICES. Mhm. fi mu ne nag ñu ngi koy organiser waat. Mhm. le cinq bi li ëpp ci ñoom. Mhm. dañu organiser wu en pôle zone centre zone nord zone sud pour que de manière simultanée. Mmh. ñu def ay réunion parce que xam nga boo bëggee jógee euh, Tamba ñëw Dakar wala nga jógee euh, Podor wala euh, Matam ay relaaw ñëw Dakar dafay kii ñu bëgg ko def des ci ay pôles régionaux yoo xam dañuy daje de manière simultanée ku ci nekk organiser wu yaa mémorandum yëglu ñu partagé ko partagé mémorandum boobu dinaa la ko yónnee pour nga exploiter ko bu ñu partagé mémorandum boobu ñu xool amendement yi ñu jox mais autorités yi xam nañ ko AMS ils sont au courant dañ leen tànqamlu su ma la bëggee. dañuy tànqamlu dañuy nasaxal. Mhm, waaw tànqamlu wuñ dañuy ngeen xeex. nasaxal. Mhm. ndax foofu lañ ñu jëmee nag ñoom foofu lañ ñu jëmee mais on fera face. duñ ci def coow lu bari nag. Mhm. on sera très stratégique. on est très pondéré. coow li du bari. mais dinañ faj la ñu bëgg saafaraal ci kàttanu yàlla. ok ci loolu sax dañuy daal di eh, waxtaanee ci report élection locale yi mais balaa ñu si xuus. ñu ne euh, mode d'élection dafay changer. incha allah ñu wax ni mel na ni atout la. ah oui oui ça ça ça règle un gros problème ñun ñëpp xam nañu problème bi fi amoon. da mm-hmm. am na benn maa ngi ciy waxtaan ak suma benn xarit mu may nettali. Mm-hmm. benn xarit adjoint mm-hmm. ne ma waa ji moom kenn ak mou moom mouvement kenn moo ci nekk conseiller. benn nit. ñu def vote ak yëpp moom benn nit boobu moo jàll. moom moom mujj nekk maire. sur un collège de plus de cinquante euh, conseillers. raw gàdd bi daal dañ ko waroon soppi bu yàgg. bu yàgg parce que loolu moo fi am ñu ñëpp dund nañ ko à la limite l'écrasante majorité des conseils municipaux ku ne dund nga ñu proposer la xaalis pour nga voteel koo xamante ne dafa dafa am minorité lay doxee. te kenn xamu ko. malheureusement ñun ñëpp dundu nañ ko li tax gaa yi décrire bi maintenant si le maire est élu au suffrage universel direct. Mhm. alhamdulilah. mooy gën ko moo non moo gën téeméeri junni yoon. kooku moom au point c'est mhm. ñu yokk seen mandat yi léegi euh, dàkkaat élection locale yi yéen a ngi xaar. Mhm. xaar bi yàgg na. Mhm. wala ànd nga yow ci dàq bi. non dàq bi c'était consensuel man mosuma di ànd. mais quand boo bokkee ci mbooloo. Mhm. ñu am une position consensuelle. da nga leen ci accompagne léegi nag dàq bi dafa doy. dàq jëm kañ. deux mille vingt bi euh, jàpp nga ni élection war nañ ko ci mën a. war nañ ko ci a def. xam nga février deux mille vingt deux bi lu tax gaañe di ko daw. parce bëgguñu ñu reporté waat les crainte boobu lañ crainte boobu lañ ci am. Mhm. mais si le président de la de la république donnait des assurances à tous les sénégalais. Mhm. nee bu defee élection euh, législative février mille vingt deux. Mhm. dina def élection. Euh, légis euh, locale mille février deux mille vingt deux. législative juillet. deux mille vingt deux deux mille vingt deux. ñu xaatim ko. tënk ko coow jeex. parce que décembre février c'est quoi la grande la différence c'est pas énorme mais fi mu ne nii dañu yaakaar ne. Mhm. ni ñu dàqee. local yi local yi. di mhm. dala de deux ans. Mhm. ñu dara dàqaat législative yi. les mêmes causes produiront les ah, mêmes effets. ah xaw ma nay sama boo ah. gisee lu ñu da ngay daw. Ah, waaw mais bu boobaa nag bu ñu yeggee ci présidentielle war koo dàq tamit kenn du wax. <laughs>